ginnaaw manifestation bu metti bu ñu nemmeeku woon ci diwaanu Touba xale yi di naqarlu ñu wàññi état d'urgence ak couvre-feu bi ba tax ñu tojoon lekk bu Touba yóbbu fa ay ordinateur ñu gis Habib dara di secrétaire général Sutelec syndicat unique des travailleurs de l'électricité di naqarlu lu ni mel. Ah, dañu ñëwoon Touba pour massawu liggéeykat yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk. ndax gis nañ ne am na ñoo xam ne dafa am lu leen metti ñu ñëw fii daal di toj Senelec bi euh, yóbbu ay ordinateur ñu ñëw nag pour massawu liggéeykat yooyu ndax li ñu li leen dal metti na massawu Senelec aussi parce que mu ngi def bâtiment bu bees sàq defal ko waa waa Touba pour gën a jege clientèle bi ñu jël fi ay ordinateur yàq tout le matériel loolu aussi ñu koy massawu direction général bi nga xam ne euh, délégué régional Pape Moussa Thiam mi nga xam ne mu ngi yebal fi Ndiaye Thiam ak euh, chef ma Macoumba Bey ñu ngi leen di massawu di massawu aussi ku tedd ki euh, xalif général des Mourides ndax li jëf la joo xam ne kenn séentu ko woon ci Touba donc loolu moo tax ñu bëgg autorités yi wax ne lii ñi ko def dañ leen a war a euh, dóor ay daan ba nga xamante ni bii kenn ku nekk Touba da nga fiy nekk ci li nga xam ne moom la sëñ Touba santaane woon. wax na tamit eh, si dogal bi njiitum réewum Sénégal jël ci diggante Sénélec ak Akin. ci presse bi nag lañ ko dégg ñu ne président de la république convoqué na ba ne nañ casser contrat bi mais ñun sax duñu yem foofu parce que dañ na du contrat boobu rek moo nekk Sénélec am na tey beneen contrat bu gën a graaw Akili bi mooy contrat Excelec boobu moom la ca nekk buñ ko càmbaree. i gis ne vraiment Sénélec doy na waar donc c'est pourquoi ñun dañuy demander ñu ñëw ñu auditer Sénélec ndax contrat bi ñu am ak assurance contrat bi ñu am ak BLF in contrat bi ñu am ak ak ENSIC yooyu yëpp ay contrat la yoo xam ne bu ñu ko seetee ba ci biir nañ gis ne contrat yooyu du intérêt Sénélec du intérêt liggéeykatu Sénélec du intérêt même population yi parce que tey jii Sénélec bu ay charge am yokkoo amul fenn fu mu koy wute fu dul ci clients yi nga xam ne ñooy fay donc courant bi mooy ñan nar a yokk ñun ñi ci biir nag di gis loolu dañ leen di wax ne nañu arrêté contrat yëpp ñu xool ko ñu càmbar ko. jëf ju ñu xamul ci dëkk bu sell bii di Touba mu di ay manifestation seen doxum ñaxtu faju na waaye junna naqar ci lekk ba tax ay dara di ñaan autorité yi ñu def lépp lu ci war.